nekk jigéen femme leader ñu si ñu wax ni ñu wax ni euh, siif nañu jigéen euh, mu nekk combat boo xam te ni combat jigéen ñi la malheureusement booba léegi organisation féminine yi dégguñu leen ci ñu euh, wax ni prudence lañu ñu dawalee mm. est-ce que yow tamit prudence ngay dawalee ci wàll boo xamante ni dañu laal jigéen comme yow dañu laal jigéen ñun toog nañu ay cinq jours waxuñu ci ba nit ñi di ñu demander lan mooy suñu position ci loolu euh, ñu déjà ñun on est inconfortable li ñu mën a waxee position bi nekk neexewul parce que malgré suñuy conviction beneen jigéen moo nekk ci côté bi mais xam nga lan moo tax malgré loolu du ñu xëcc fibre féminisme bi mm. parce que il faut ñu protéger yeneen jigéen ñi nga xam ne suba mën nañ nekk place Adji Sarr gis nga bu ñëpp jógee euh, ne Adji Sarr moo am dëgg ah alors que Adji xamuñu ko personnellement on l'a jamais vu. non pas pour ah. wax ni moom non pas pour faral ko mais manifester peut-être par exemple soutien jusqu'à la preuve du contraire ba gis dëgg gi am. peut euh, déjà ñun mënuñu ko apporter le soutien parce que Adji Sarr dama jàpp ni. victime la doon côté gisoo leen ko gisuñu ko ba pare tamit euh, Adji Sarr est par quelqu'un hmm. am na ci loxo yu mu nekk. parce que quand même. Hmm. Euh, bu fekkente ne nit ki dafa nekk ci diggante. Hmm. jaaxle nit ñi dañuy daw wuti ko pour jàppale ko. tey amul benn organisation féminine jàpp naa ne bu mën a jot ci Adji Sarr. jéem nañu suñuy pexe ruqu mhm. pour même buñ ko même bu ñu waxut ak moom ñu waxtaan ak moom kon da ngeen doon xaar moom mu génn wax wala ay avocat am euh, def ak moom conférence de presse dañu doon tout comme ni ko Sonko defee mais quinze pour cent des Sénégalais yu bëggoon def président Ousmane Sonko président de la mhm. République mhm. soo ñëwee projet de société boobu nu ñu ko construire ci ay valeur nga teg accusation yoo xamante ne daf koy sukkal on a quand même la moindre des choses mooy nga taxaw jàkkaarloog Sénégalais yi ah wala say parce que nag gisuñu benn mbokk Adji Sarr à part li ñu gis ñu bind ko. Hmm. bu taxaw wax wala Adji Sarr mu taxaw wax lettre la ñu gis ñu teg ko ci journal Les Échos. mais mais mais mun na ni nga jàppee ne ni nga jàppee ni nga ne elle est ay nit ñoo nekk ci ci ginnaawam est-ce que du woon raison puisque Adji Sarr nit la am na tur wax nañu fi la dëkk wax nga ko dégg nga ay njabootam wax dans certains quotidiens d'information. Mhm. qui a également ses droits. Mhm. est-ce que xaaruñu woon jigéen ñi au moins euh, pas position bi rek politique mais am ci beneen lecture. Euh, xam nga lu tax mënuñu ci am lecture nag Fatou Abdou. Mhm. sénégalaises yi féministes sénégalaises duñu ay naafeq. Mhm. te gis nga yu mel nii ay accusation yoo xam ne dafa ànd manipulation ñun ñëpp dañ ko war a xeex. Mhm. parce que loolu day tax bu ëllëgee. ki ñu def dëggantaan. je dis que si Adji Sarr est mais on pense si elle victime on pense qu'elle l'est. waaw xam nga nag on a. tout le temps si elle est une victime. est-ce que aussi. non elle est victime dans le sens où. pour, pour, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, mm. elle est manipulée. Mais elle a choisi d'être dans un camp. Mm. Parce que jusqu'à ce que mon Mougen, c'est contre son gré, que li fi mu nekk tegu fa boppam que dañu ko menacé ñun dañu jàpp ni mu ngi ci camp ñi nga xam ne ñoom ñoo yore les ficelles de ce complot. Mhm. comme nag mu ngi ci loxo yooyu. comme mu ngi ci loxo yooyu nit ñi mënuñu ko fa dem fekk ci loxo yooyu naan ko kaay ñu jàppale la mhm. parce que moom déjà am nañu ko jàpp léegi may mun a sànq da doon wax ne soxla euh, wu soxlawuñu prophète euh, euh, dañu am yeneen i jafe-jafe mais est-ce que la vie privée koo xam ne dafa war a bëgg diriger Sénégal boobu intéresser les Sénégalais la vie privée mën na intéresser les Sénégalais absolument ci ay comportement mhm. mais da ba ñu dem ba nga xamante ne cette vie privée là mhm. elle se retrouve sur je crois que Fat Abdou kenn suñu ku nekk am na lu muy def di ko nëbb. kenn suñu ku nekk. tout à fait Sénégal nag dafa am lu ñu ko tëddee. Mm-hmm. parce que réew moo xam ni quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans. Mm-hmm. jigéen maase góor sax ñu ko. Mm-hmm. gis nga les premiers instants. c'était choquant d'entendre. jigéen warul maase góor. ñun en tant que ay jigéen nekk ay féministes di mboot ay jigéen yuy liggéey ci domaine bi. mënuñu rafetlu loolu. parce que ñu nekk ñu ci pays islamique. pays islamique yi sax da dugg ci ay bërëbu esthétique yoo xam ne jigéen ñi dañ ciy sol sol ay mbubb di maase ay góor mhm. il faut que ñun sénégalais ñu def dépassement ci suñu hypocrisie mhm. soo gisee ma wax la loolu mooy bu fekkoon que ne son ko dafa am doxalin bu mu doxal ci place publique bi bu ñaaw ñu ñëpp dañuy ànd condamné mhm. alors tey est-ce que am mais pour man boo demee ba ci benn salon de massage daw ba dugg foofu massé wu ñu dem ne la foofa foofa nga dem marché waroo fa marché encore une fois man waxuma ci ay affaire accusation de viol parce que pour man loolu mhm. c'est grotesque mhm. c'est grotesque vraiment je trouve que c'est quand même léger mhm. président Macky Sall ni mu aaree boppam euh, article ku ko tudd ñu jàppale tëj tey mu ne dafa def statut du chef de l'opposition def ko ci référendum newoon Idrissa Seck la tey Idrissa Seck jóge fi mu war a nekk Ousmane Sonko nga jàpp kooku le chef de l'opposition traîner que dans la. Euh, justement justement est-ce que mënuñu mënuñu am une lecture politique mu ñu dem au-delà de ces faits nga xam ne ni ñu bëri faits divers lañ ko jàppee affaire de mœurs euh, que nag opposition bi xoolaat toogaayam parce que ci sa tàmbali wax euh, Maimouna da nga wax ne président moo fi waxoon je vais je réduire l'opposition à sa juste. à sa plus simple expression. tey jii ni am na ñu dem fere fere ji ak le président de la république ay ñu fi nekkoon ay ténor ci wàllu opposition tey Ousmane Sonko xëy na moom lañ doon lam-laame ne moom moo fi nekk tey. tey leader de l'opposition alors tey affaire bi nii bu ñu demee ba tey voilà ñu gàkkal ko ci wàllu politique euh, wala ñu rey ko ci wàllu politique euh, opposition bi taxawaayam bi mu war a am par rapport à cette situation ndax ñu ngi jëm nag ci ay échéances yéen seen taxawaay par rapport à bon Ousmane Sonko moom kese nekku fi quand ci hmm. opposition bi ah, ah moom mais ñu ngi doon laam-laami que moom mooy leader leader de l'opposition que moom moo topp ci Idrissa Seck hmm. donc say logique bu fekkee ci ñun régime présidentiel lañu moom moo ci topp hmm. la Euh, par rapport opposition bi ñi fi nekk daan seen doole foog naa ni bëri na. Mhm. Euh, Ousmane Sonko gën cee féete ndaw gën cee actif. Mhm. gën cee nekk opposition radicale. Mhm. tey opposition bi seen taxawaay du yomba. fekk taxawaayu président Macky Sall jooyante ko. parce que nag euh, armes yi moo illégal. parce que ki ñuy xeexal. il ne recule devant rien. Mhm. parce que xam nga ne lu tax ñu am sañ sañu taxaw fii ci télé bi. Mhm. le président moom moo taxaw ne euh, am na ay nit yoo xam ni. kenn mënu leen a topp ci yoon. Mhm. boo ko defee réew mi yëngu. moo ko vidéo yaa ngi circulé. ah mu ne am na yoo xam ne bu ko ko joxee day téye. kon bii bu jàllee moom la neex. alors tey parce que dafay am dégg-dégg. lii di dem nii nag ñu ngi koy appelé ne ko. góor la. borom kër la mhm. réewu senegal la ñu nekk réewu diine la ñu nekk am na na wut pexe bu dee dafa bëgg a fàggaagal Ousmane Sonko mu wut mhm. yeneen yoon yu mu jaa même bu dee sax nee na laalewu ci yoon bi moom wàcc na àndam même bu dee sax nee na laalewu ci yoon bi moom <laughs> wàcc na andam euh, dafa mel ne même la gëm loolu <laughs> non ma nga ca biir mhm. man je l'assume ici président Macky Sall moo nekk ci ginnaaw lii yépp parce que nag bi ñuy jàpp Khalifa Sall fii la taxaw ne yëgul tidul laalaalewul. Mm. kon est-ce que am nga confiance noonu la ko defee woon. kon est-ce que nga confiance finalement ci justice Sénégal parce que bëri na lu ñu koy jiñ ñi daf ci taqee laale ci lu ci mel ne affaire Karim Wade lu ci mel ni Khalifa Sall tey dossier bi ban defi la war a euh, nekk pour justice sénégalaise. Euh, j'espère que du ñu egg justice comme li ma la wax léegi li Fatou Abdou wax j'espère que assemblée lay yem. Mhm. Euh, am naa confiance ci section de recherche ñu def seen enquête. parce que barki démb ñoom ñoo fi enquête woon Bougazelli mm-hmm. ñun kenn yëgul ñu génneen ñu ay dilem teg ko ci table ñu ngi leen di jaajëfal mm-hmm. li ñu def rek dañu war a def sénégalaise ñëw na ci ñoom plaindre na ñu jël dossier bi instrumentaliste kii ko mm-hmm. teg ko enquête ko li ñu leen mën a meree mooy xëy na dans l' avenir ñu xool li minutes parce que nag mënuñu ay ñu dugg ci ay néeg waxtaan nga gis boo yeewoo presse bi moo lay wax kii lii la ko wax nee la sëqatee lee la lépp lu voilà xam nga parce am na ñu commencé tëb di jubilé di wax ni plainte contre x visé wul Ousmane Sonko alors que jusqu'à présent aussi bu ñu fàtte ni levé gu ñu immunité parlementaire. xam nga plainte contre x bi euh, c'est parce que dañoo xamul ni amuñu sañ-sañu plainte Ousmane Sonko parce qu'il est encore député. Mm-hmm. donc fekk simi wuñu immunité euh, bi euh, immunité parlementaire mënuñu ko viser. Mm-hmm. donc noonu lañ ko mën a jaarale leneen liñ ciy wax mooy justice sénégalaise moom. ay mbiru procureur rek tribunal ak yooyu seen ñun xam nañu c'est le bras armé du président Macky yàgg nañ ko fi dund dund nañ ko fi ci xalifa dund ko fi ci Karim bu ñu jàppee ni bu ñu eggee foofu hmm. bu ñu eggee foofu pour man le combat sera déjà biaisé d'avance hmm. jàpp ma ni dinañu egg foofu ñu ngi ñaan nag pour assainir le débat encore une fois ñu bañ a egg si foofu pas parce que Ousmane Sonko est un intouchable mais parce que Ousmane Sonko fait partie des 15 pour cent de sénégalais yi nga xam ne. Mm-hmm. soo leen laalee peut-être dëkk bi. dëkk bi ko président Macky Sall waxee. te signal bi joxe nañu ko ci ba banu ko banu ko tuumalee affaire bi gis nañu yenn ci ay manifestations yi am autour euh, de Dakar et un peu partout au Sénégal est-ce que loolu warul mën a doon message bi peut-être nguur gi war a mën a décortiquer à ce que nag mbir mi ñu ñu xool nu ñu ko gérer. jàpp ma ni loolu kese la war a doon parce que manifester yi ñu fi defoon 2013 2014 terewul Karim Wade ñu tëj ko ci kaso bi. Mm-hmm. ay nitam amoon nañ jàmbaarte trop terewul ñu tëj ko ci kaso bi. Mm. donc pour man waruñu reculer pour les manifestations dañu war a reculer parce que c'est un débat mm-hmm. dañu war a reculer parce que image bi ñuy woo jox suñu doom yi di ko jox di ko fi bàyyi ëllëg. Mm-hmm. rafetul. Mm-hmm. gis nga sa nit ki loo ko noonoo noonoo dafa am yenn yenn yenn prise de combat yoo xam ne. dafa jekkul sax nit di ci di ci di ci di ci tër. Euh, di ci tër adversaire am parce que dafay bàyyi impact. dafay bàyyi impact sur les générations à venir hmm. et puis et puis quand même i y a beaucoup de jeunes qui sont avec Ousmane Sonko je pense que euh, bu fekkente ne régime bi wóolu na boppam hmm. am na leneen lu mu war a teg ci chemin Ousmane Sonko pour barrer lui barrer la chemin